kon baraana lu yaakaar ne gàllaaj la liggéeyam day fajaar baraana ku yaakaar ne day boromam xel la moo tax lu mu dugg génn ci ndey ma ko liggéeyal baayam baraana koo xam ne kii foo ko fiir mu teggi ko ndey ma ko liggéey baraana ko bari wërsëg lu mu yëngutul loola barkeel lu mu def am ca ndam ndey ma ko liggéeyal ci kër baayam day gàllaaj gu dul toj liggéeyam ndey sëñ Basiru Seck mooy gàllaaj gu dul toj gàllaaj gu mën a doon mën naa toj